Donc, kan est responsable donc si responsabilité bi population autorités ne en termes de matériel les personnel euh, euh, euh, responsabilité, mais population la population le La majeure pour partie majeure partie pour respecter les mesures Il ay récalcitrants ko kenn du mais bu responsabilité am na autorité yi responsable d'abord son comportement et sa prise de décision information yi ñi dans la presse elle n'est pas alarmée. mais xalim général des étudiants wax na leen ko ne leen wax na leen dëgg askan wi tay ji ni amna ben médecin bu journal ñu ko bind sénégal ñu entre 50 000 et 110 000 cas ñëkkon na ko wax bi mu 10 000 cas la waxoon tay mi entre 50 000 et 110 000 cas ñoom wedd wuñu ko bu fekkente le corps dafa def division de force nouvelle pourquoi woowuñu ko te tey vous nii bu bu benn journaliste wala benn société civile Vous leneen ñu ne ko kañ topp la division de force nouvelle. donc liy dëgg mooy na état bi wax dëgg à wi jël lui. yi mesure dëgg nag pas mesure ay mesure mesure dëgg parce que forum civil vous xoolee waxoon ko depuis le début dañ ne mbas mi demi mesure du ko faj bi président de la République jëlee ay mesure relâchée. ci ngeen gëj a le forum civil wax ci parce que solution bi doon solution drastique la woon te nekkul population lu mu bëgg rek boo dee njiit nekkul population lu mu bëgg rek te njëriñam nekku ci nga ak mom. nga xamne li population bëgg na ko yow nga am information yi te mu wóor na ne lii njëriñam nekku ci nga ci ak mom, c'est parce que bëgg population bobu non.